taati bi nadratin taatiana bi zafari ba'da al-madadi ukhra al-hadrat assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooloo mi teew yëpp ñu ngi ziyaare cheikh Mouhamad al Amin nga xam ne mooy borom ziyaare bi tey ñu ngi ziyaare Mawlana cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci moom ñu ngi jaale suñ nuyoo ci doomam Cheikh Ibrahim bi nga xam ne moo kilifa ci kër gi di taxaw taxawaayam bu fi nekkee ak bu amee ngànt ñu ngi koy nuyu di nuyu mboolee mi mbokkam di nuyu suñ nijaay Cheikh Mouhamadul Bachir ci kàddoom yu rafet yi nga xam ne moom la wax léegi di wax amin ci mbooleem ñaanam yi di wax ne waaye malaaka mi mu lay wax ne wala kamis du zalik di nuyu cheikh Mohamed Abdul Malik bi agsi léegi yokku jotaay bi nuuran ala nuur waaye ñu ngi nuyu cheikh Mohamed El Habib mi nga xam ne moo doon def waxtaan bi léegi di nuyu waa Njaayeen di nuyu waa Medina yi teew ak ñu jugee ci jox yu fasantikoo ngir ñëw teew ci bés bi nga xam ne bési ziyaare la ziyaare kan Cheikh Mouhamadul Amin xam nañ ziyaare ngir yàlla naka la toll ndax ziyaara ngir yàlla yàllaa ko moom ki ngay ziyaare nu mu mën a toll boo jógee ziyaare ngir yàlla ziyaare bi yàllaa ko moom waaye ku ñuy ziyaare ngir yàlla seeni dayo duut benn ni seen dayo nekkatee benn bu aji ziyaare ji wéralee jugam ngir ziyaare ngir yàlla tabaraka wa yàlla dafay nangu ziyaare bi ci kem dayoob ki nga xam ne moom lañuy ñuy ziyaare ngir yàlla te amuñ sikk ne ziyaare ko ziyaare Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ndax bàyyee ko waxoon ne ko sama doom ci jëmmu ak ci roxo te bu soobee yàlla sama ndimbal ci mustaqbali daawa tariqa bi nga xam ne moom laa nekk yoon wi nga xam ne moom laa nekk ak yoon wi nga xam ne moom laa rëdd mu wax ne kooku mooy Oustaz Mouhamadul Amin wax ko ne ko da gis sa bopp bokk ci settey saalixiin yi nga xam ne ñooy moom sënët yi nga xam ne nii ñooy calal ak ñi jokkale ak Cheikh Tidiane jokkale ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nga xam ne ñoo amee woon sholati daawa ila allahi tabaraka wa taala fi'lan nekk na kenn ci ñooñu Muhammad al Habib wax na lu bari ci loolu waaye nekk na jidda nekk ci ambassade bi boobu lañ xam bu baax ndax fekk ko fa lu bari ambassade bi sooxewut te terewut daawa taxawaay bi mu ci war a taxaw dara sooxewu ci bu xëyee dana dem def liggéeyam comme ni nga ko war a defee waaye bu liggéeyee ba wàcc da nga fekk ne kër ga mooy zaawiye bi nga xam ne jamono boobu dëgg dëgg taxawal zaawiye ci saudiya ci jamono boobu yombut yàqu daara ci lim doon liggéey te matal na yoon boobu nga xam ne nii moom la ko bàyyi waxoon ne ko da nekk nga nekk ndimbal ci mustaqbal tariqi wa xatti loolu ñun shaahid iyaan lañ ci mu jubal ñu bëri foofu dëggal rek nag li nga xam ne moom la leen bàyyi waxoon bu ngeen mënee liggéeyal àddina ak diine ngeen def ko bu ngeen mënul loolu ngeen liggéeyal diine kon mu mel ni yooni bàyyi ci mbooloom ci yaram parce que yar bi am na ñoo xam ne dañ leen a xadu pour ñoo war a eno soxlati daawa ñooñu dëgg-dëgg dafa am responsabilité boo xam ne moo aju seen kaw boo xam ne mu ëpp bu ñeneen ñëpp di enu ndax ki nga xam ne danga wara ame àddina di ko doxal bu ñëpp di nelaw waroo nelaw li waykat bi waxoon man a kaana xaarisa dunyan innahu qaminun an laa yanaama wa kullu nnaasi nuwaamu wa kayfa tarqudu ayna man qasimu hammaani min amrihi xallun wa ibraamu koo xam ne yaa wara fas di fecc bu nit ñi di noppalu kooku doo am noflaay looloo tax yar bi wan le man ngaa nekk ci àddina góor góorgóorlu jàng jàng ci daara ji jàng alquran jàng xam-xam góorgóorlu nekk ci liggéey liggéeyal sa réew liggéeyal sa àddina te fekk li nga xam ne moom la daawa bi soxla dara du ci sooxe loolu mooy li nga xam ne nii moom la Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu bëggoon wax naa waa Njaaye nii démb ba ñëwee may leen da ngeen a am onwaan lislaam ak politique du ma wax ci loolu parce que politique tey jii ni ko Sénégal jàppee politique ak lislaam ëpp na loolu te thème boobu dafa nekk thème bu yaatu bu rëy bu rëy bu rëy bu rëy boo xam ne reyaayam mën naa am kii kii tënk wax bi seetu ko man naa am kii wax ne lislaam ak politique moom mu ngi xalaat taxawaayu sëriñ si rek ak politique ci Sénégal fekk lislaam ak politique parce que ëpp na lool lislaam ak politik jëdalie bu mag jugee na ci te jugee ci ay boromi xam-xam am na ñoo xam ne jàngoon nañ Azhar ba nekk ci boroom xam-xam yi nga xam ne ay marji lañ ku mel ni Ali Abduraziq ba mu demee bay bind téere xukumal euh, islaamiya wax ci ca jamono boobu moom li ko xelam jox mooy ne atteeb lislaam ba yonent bi jógee fii rek la fi jugee jeex na parce que dafa wax ne mu ne kooku la yàlla wàcce woon sharia ñi ci des amuñ wax yu ay nit lañ comme nit ñi xukuma xilaafa Aboubacar xilaafa Omar demeet yooyu yëpp dafa jàpp ne pour moom duut xilaafa islamiya waaye xukuma rek la comme xukumaatul bashariya yi nga xam ne dafay aju ci xalaat yi nga xam ne dafay nangu juum dafay nangu jubal ndax boroom amewut benn wax yu mu am tontu yu bari yoo xam ne jug na ci jamono jooju loolu nag li muy jur mooy ñi dem ba xam ne dëgg-dëgg li yonent bi sallallahu alayhi moom moo jàngale buñ gëmutoon ne xilaafaat yi fi xulafaa yi fi jaar ak seeni xilaafa buñ gëmul ne islaam islaamiya la sax xukuma ñi nga xam ne sharia ñi nga xam ne xulafaaul arbaati nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne nañ jàpp ci seen yoon ñooñu seen yoon waruñoo am uutee ndax xukmu islaami la wala du xukmu islaami waaye loolu te bu bëri jaar na ci boo xam ne ñun euh, taxul ñoo jóg bokkut ci li ñuy xam ne moo ñuy tax a jóg waaye comme tuddoon ngeen baat boobu dafa am rek jaar waaye yu ñuy jaar ci lool waaye ñun li ñu fekk ni ñi di wax nii muy ziyaar rek lu ñu ci mën a jëriñu ci loolu la ñuy wax xukmul islaam yi bu ñu demee ba jàpp ne am na lislaam tëralut tëralut benn yoon boo xam ne bii yoon bii rek moom ngay jaar pour atte ndax bu ñu nee démocratie mu ngi fi dégg nga yeneen a ngi fi lu ci dàqoowut ak lislaam mën na koo adopté atteb li nga xam ne du mën a nekk atteb lislaam lu may mu nekk ko fow mu nekk atte boo xam ne dafay aju ci maandu nañ doon tànnee attekat ci lislaam amut benn siixa boo xam ne mu ayyan ne lii la lislaam wax ne loolu la ñuy tànnee attekat ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jugee na fi bi mu fi jugee dafa junju junjam ci la sahaaba yi wa amruhum shura baynahum ñi def shura tànn seydna abou bacrin bi mu fi jugee seydna omar naka noonu mu bàyyi ñi ñi nga xam ne yonent bi génn na àddina fekk mu ngi leen gërëm ñoom la jiital ñi tànn ci seen biir ñi tànn Seydina Ousmane nga xam ne kon islaam taxawalut maanaam uslub mu ayyan ne uslub bii ci la ñuy tànnee euh, xaakimu dawla waaye comme bàyyil nañu shura shura boobu bu jullit ñi demee ba nga xam ne xam nañ nu àddina di doxee lépp loo xam ne jàng nañ ko ci doxalini àddina mu mën a baaxal te du ci am dara loo xam ne dafay dàqwanteeg lislaam bu boobaa lislaam dana ko nangu dugg ci biir biir loolu nag moo waral ñiy wax ndax atteeb islaam ak lu dul atteeb islaam buñ demee ba tey ba nga xam ne ñenn politiciens buñ ne l'islam ñenn ñi ne lislaam warta am warta dugg ci politique warta am benn wax ci politique loolu boo demee ci charq da nga fekk ne loolu li muy firi mooy dañuy gis ne maanaam ñi oote lislaam amee ay parti waruñoo dugg ci politique parce que ñoom dañoo bëgg oote politique pour atte nit ñi ci diine te diine ji yàllaa ko moom dawla bi nit ñi ñoo ko moom yooyu ay wax la yu gudd yoo xam ne nii buñ ci doon dugg daf ñuy dugal ci ay métahaat waaye mu am ay tajriba yoo xam ne benn benn yi nga xam ne dañoo joto oote ne ñoom lislaam la ñuy aate ñooñu bañ demee dugg ci seen tajriba ñu lajj ci seen tajriba lajj boobu ñu lajj dafa am ñoo xam ne ci lañ jàppee ne kon atteeb lislaam munta dem nit ñi daal li leen mën a àtte mooy fi mustawa xel tey àgg ñi jëfandikoo fi mustawa xel tey àgg ñi jëfandikoo ko lislaam lim ñu xamal mooy alxikmatu dàllatul muumin xam-xam buy jëriñ dafa mel ni lu réer la ci aji gëm fu ko fekkee rek moo ci gën a xeey moo tax bu demoon ba am ay jullit yoo xam ne nii dëgg-dëgg rafetal nañ seen pas-pas ci yàlla tabaraka wa taala xam nañ nu ñuy idaara la xam nañ naka lañuy ñuy euh, doxalee réew xam nañ nu ñuy gardee économie réew xam nañ nu ñuy def ba réew yi stable nit ñi am euh, euh, jàmm adaala am ku nekk ñu jox la sa wàccuwaay ndax lislaam ba muy àtte mu ngi sóoraale ñi gëm lislaam ak ñi gëmul lislaam buñ demee tey nattu bi gën a rëy bi nga xam ne moom la jullit ñi am mooy ñu gën a bëri ñoo xam ne dañuy oote ne lislaam ci la ñuy oo nit ñi bu ñuy wax dafa mel ni soorale sóoraalewuñ ne ñu ngi ci àddina bi ak beneen nit dañoo jàpp ne ñoom rek ñoom ñoo nekk ci àddina sóoraalewuñ ku gëmut sóoraalewuñ ku ku bëggut sóoraalewuñ koo xam ne yeneen teyaar yi moom la gëm yow nag nga jël benn teyaar gëm ne lii nii moom danga ko war a fard àddina bi te yow nga nekk ci àddina boo xam ne tey bu fekkoon ne da war a am doole door a koo ilif sa doole ji amagut bu fekkee da ngaa war a am xam-xam door koo sa xam boobu amagut fekkee da ngeen a waroon a ànd dimbalante ni nga xam ne loolu la ñu lislaam laaj pour ñu war koo dimbalante dimbalante boobu amagut bu boobaa nag dafay jafe rawatina bu demee ba nga xam ne ñi nekk ci suñu réew yi léeg-léeg bugg a wax nit ñi ne dañ leen di oo ci lislaam seen mbokki jullit ñi nga xam ne dañ leen a fekk ñi nekk jullit ñoom ci seen bopp dañ leen a considéré ne ñii duñ ay jullit ba pare nag door a commencé kon booy oo kan ngay oo booy oo kan ngay oo te atte boroom xam-xam yi ñoo wax ne dëw la ibnu taymiya sax moo ko wax bàyyi wax na ko ci ay xutbaam ne dëw la réew dana jubee ci loxoy buur buy héevéer te maandu te dana ñàkk jubee ci loxoy buur bu gëm yàlla te maanduwut ci loxo jullit boo xam ne nii maanduwut kon dëgg-dëgg liñ soxla mooy ci suñu réew yi liñ gën a soxla mooy am ay buur yu maandu yu xam yoo xam ne mën nañoo doxal suñu réew yi mais xam nañ suñuy réalité réew yi lan la sóoraale nañ ñi fi nekk sóoraale nañ ñi gëm sóoraale nañ ñi gëmut xam nañ ne ni ñi dañoo am seeni tànneef ñu sooraalee loolu bu fekkee buñ amee ñu mel noonu boobaa mën nañoo euh, dugg ci ci ci ci débat yu mel noonu <coughs> amaa bu fekkee lislaam ak politique bu ñuy wax tey mooy li taalibe yu bëri wax yoo xam ne buñ ne politique ñu ne ah man nag sëriñ bi sequma moom loolu man daal sëriñ bi li ma seq ak moom mooy ja mooy nàngam te loolu dara defu la ko mooy lu may lale nga xam ne ñële ñoo ko doon wax pour écarter lislaam ci mépp mbir ñi wan la ne l'islam sax bokk ci politique bi moo tax kon yow sa sëriñ bi sax moom amul droit ci wax droit am ci politique yow yaay kan yow xale bu ndaw nga wala mag mu mag nga waaye sa xel rek nga amee bokk ci réew mi am droit wax lan nga bëgg ak lan nga bañ sëriñ bi nga xam ne yow bu fekkee ne dangaa wax ne mooy sa sëriñ bu fekkee ne da ngaa jàpp ne sëriñ mooy dof maa ngi lay ñaan ne bu ko ut fekkee sëriñ mooy dof bu ko ut mooy ku xamut fi mu jëm tim bu ko ut fekkee sëriñ mooy koo xam ne nii buñ ne lu baax ci Sénégal moom lépp lu baax ci Sénégal safaan bi la bugg kooku jarul ngay ànd ak moom waaye sëriñ boo xam ne yow gëstu nga ko xam nga ne kii gënoo ko doon nit gënuloo koo jàng gënuloo koo xam gënuloo ko bëgg réew mi li ko li ko réew mi jaral bu fekkee bu fekkee jaral na ko jaral na la ko bëriwoo ay kem yu mel noonu nga ne nag kooku moom daal man moom na jaar politique bi daal moom bu ci wax benn baat lu tax du ci wax benn baat xam na lu muy wax am na xam-xam dégg nga mën naa am sax mu dem ba àgg ci am basira kooku war naa mën a wax ci dara rawatina nag bu fekkee yow da wax ne yow tëriñ boobu sa taalibeem nga waxuma rek ne yow da ngay na bokk fu ngeen askanu waaye boo demee ba nga xam ne sëriñ daf laa doy nga ne kii sama sëriñ la doy na ma ci yàlla doy na ma ci ànd ak moom ci luy defar ba pare nga ne mbiri àddina bi nag moom bu mu ci am benn xalaat yow yaay am xalaat moom war laa topp kon kooku dootu sëriñ bi yow moomu yam yaay sëriñam yow moomu yow yaay sëriñam ñun ay sénégalais lañ suñ politique mooy lépp lu baax ci Sénégal te du fànqawoon teg suñ diine loolu pour ñun baax na buñ demee ba foofu nag yow ngay jullit lu baax ci Sénégal da ci sooraale lu baax ci lislaam yow nga am paspasi diine lu baax loolu da ci sooraale lu baax yow ci la nga nekk parce que bu def lu may yow da ngay tànn yow am nga droit tànn ki nga xam ne dëgg-dëgg gis nga ne moo gën ci Sénégal moo gën ci diine ji waaye moo gën yow fi nga nekk ku nekk am na droit ci loolu bu fekkee nag dañoo bugg a nekk mbooloo moo xam ne dañuy nekk ci mbooloo mi dañuy ànd mbooloo mi nis maanaam fii daal fii laa ànd ñoom fii waaye li ci des moom man ànduma ak ñoom foofu am na façon taalibe bu ne bu mel noonu ku neex mu nekk taalibe bu mel noonu waaye ku nekk taalibe bi nga xam ne ni dégg dégg lu muy dugg mu ngi ciy sóoraale euh, maslaa yi diine ji sóoraale ci maslaay Sénégal sóoraale ci maslaay lim askanu te li xam ne lim askanu du ne rek dafa jug rek di tàndatu boobaa bu fekkee sëriñ boobu la ñuy wax l'islam ak politique boobu la ñuy wax te politique boobu rek lañ ci jublu l'islam ak politique yow buñ ko wax rek liñ ci jublu rek mooy waaw l'islam daal moom nañ em ci jumaa ji sëriñ bi ne em ci ne em ci jiite ne em ci bési ziyaare ñëw ziyaare ko waaye nag ñun fu ñuy for ci politique moom loolu yoonam nekku ci façon yi taalibe boobu am na am na beneen façon yi taalibe mais du ne force façon yi taalibe boobu boobu moo am façon yi taalibe boobu tim sëriñ bi am na nu mu ko classé moom it ci ci xeeti taalibe mi ndax ku ci nekk fa nga em ak moom rek foofu lay em ak yow waaye ni taalibe yi amee droit comme ba dañoo am xel ne ñoom ñoo tànn lii bëgg ko sëriñ si tim am nañ droit tànn parce que ay citoyen lañ ay nit lañ ay boromi xel lañ fekkee sëriñ nag mooy dox pour yow yow bul ut sëriñ loolu laa doon wax bugguma woon a wax sax ci euh, loolu ci mbiri politique boobu waaye comme dangeen ngeen koo tudd rek mënumaa ñàkk a wax ñaari baat yoo xam ne nii ci loolu rek la jëm waaye ñun dañoo war a xalaat ñun ñooy ñan nit ki dafa nga war a xalaat yow yaay kan ak yow fan nga jëm ak kan nga ànd ak ak ki nga ànd ak fan la jëm tey da ngaa ñëw pour ziyaare sëriñ sëriñ bi ngay ziyaare mooy kan lan mooy ay jubluwaayam lan moo fan la jëm ak lu tax nga ànd ak moom lan nga bëgg a ànd ak moom pour réaliser ko loolu yëpp foofu nga xam sa bopp xam sa mbooloo mi nose sa bopp pour nga mën koo def démb Omar Ndiaye daf ma wax ne amoon nañ benn projet boo xam ne nii projet euh, de santé boo xam ne dañ doon xalaat am cent mille personnes yoo xam ne ku nekk joxe mille francs xam nga loolu calcul bi yomb la calcul bi yomb la waaye ana cent mille personnes yooyu ana cent mille personnes yoo xam ne ku nekk dana joxe mille francs ak ana yoon wu garanti boo xam ne cent mille personnes yooyu bu joxee mille francs nit ñi duñ ko lekk parce que nit ñi bañ ñoo joxe seen xaalis de dañoo bañ joxe seen xaalis ñi koy lekk ci lu bokk ak li nga xam ne moo ko tax a jóg ki joxe xaalisam pour àddee yoonam nekkut ci yow noo ko lekkee wala yoonam waru cee nekk bu ci yoonam nekkee te gannaaw gi tim dafa dugg ci lu yoonam nekkul rek jox nga sëriñ bi sa àddee sa yoon nekku ci daf ko mayee dem nga ba óolu ne kii sëriñ la jox nga ko sa àddiyee wër na ne àddiyee du jëm ci lu naqadi yàlla li ci des sa yoon nekku ci waaye nga joxe xaalis ñu ne pour projet la war naa am luy garanti ne xaalis bi ci projet bi la jëm léegi dëkk bi dafa nekk nii dëkk bi lum néew néew ëpp na ñaar fukki kër ñaar fukki kër yoo xam ne ku nekk benn nit moo taxaw benn kër taxaw taxaw ba tabax benn kër googu ñaar fukki nit ñooñu buñ bokkee ànd ne dañoo bëgg a tabax santé mun nañ ko waaye fekkee da toog di xaar malaaka yi pour ñu ñëw defal la ko wala lu nekk maanaam gouvernement bi ñoo la ko war a defal te gouvernement boobu ñu lay war a defal sax bu ko sëriñ bi nuyoo sax nga ne sëriñ bi gis nga ko mu ngi nii ànd ak président di wax ak moom sëriñ bi di nit dégg nga lu tax du wax ak président président di président am nga ne mu ngi nii di wax ak président lu mu wax ak wax président masta wax ak président ba ànd ak président ci nañ wàññi farata yi ñi lislaam farata masu masu ko oo ci loo xam ne daf koo naq dafa naqat yàlla mu doo mu door cee nangu Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ci xutbaam ci gàmmu dafa wax ne jullit mën naa politique ba waxut jullit sax waaye rijaalu diin yi mën nañoo politique maanaam mooy sëriñ si mun nañoo politique waaye mu ne politique yi sëriñ mooy loo xam ne dafa yëkkati lislaam muy looy xam ne ni dafa yëkkati lislaam bëri na koo gis mu toog ak président ngay wax boo xamoon li muy wax ak président mooy yow li nga bëgg président dégg ko te masu koo dégg mooy li nga bëgg président dégg ko te masu koo dégg dégg nga lu tax du wax ak président bi président bi président am la yow mën naa am sax moom bokk na ci ñi nga xam ne bi ñu koy fal moom moo ko wateloo nga ne dafa war a toog di wax rek ne président bi moom yàlla bu mu dem yàlla bu mu baax le yàlla bu mu nàngam loolu du xel loolu du xel politique yii man dama ko tuddee damay wax ne politique ut loo amagut laa ko tuddee ut loo amagut damaa wax ne jaralul ma sànni li ma amee nañ amee liñ amee nañ ko sange nañ ko garde nañ ko euh, defar ba mu baax waaye lépp lu ñuy dugg nañ ci sóoraale suñ bopp ñun ñooy ñan ndax lii daf ñuy yàqal li ñu amee wala du ñu ko yàqal parce que du force Sénégalais yëpp demuñ dugg ci géew yi nag dañuy politique yow boo demee ba man ko war nga ko man man li nga war a baaxal ci kër gi ba pare boole koog la li mu gën a baax boo ko mënut baaxalal li ci sa kanam baaxalal li ci sa kanam waaye jàpp ne politique rek mooy maanaam yow da ngaa war a tëmarut waaw politique firiwut dara lu may lu mag ñi wax rek non lu sëriñ si wax no ñi fi nekkoon buñ démb liñ wax non yow am nga droit wax non waaye moom it am na droit wax woy walla déet lii nag kenn fayuñu pour ñu wax ko liñ gëm la ñuy wax te yéen ñu ko wax loo masuma toog fi di wax politique bu ma sañoon duñ ci wax sax parce que damaa wax ne politiciens yi bu ñu dajee wax politique ñun ñu dajee bàyyi wax ziyaare di wax ci politique loolu taxoon ma ne duma ma ci wax waaye comme baat bi tudd ngeen ko man xam naa Sénégal bu ñuy wax l'islam ak politique liñ bugg a wax rek mooy ne si nañ toog fële bu ñu wax ci politique bi benn baat waaw nañ ñu bàyyi nañ sëñ si nañ ñu may jàmm loolu lañuy wax boo tolloo foofu bul ut sëriñ bul ut sëriñ bu fekkee sëriñ dof la tim na nga ànd ak man ci bàyyi sëriñu dof boobu ndax man baa naa ko nañ ànd ma yow ci bàyyi dof boobu waaye nañ jéem a nekk ay nit dégg nga ma bu fekkee dëkk yëpp dafa taxaw dëkk bi yëpp ku nekk am nga kër dëkk bi yëpp taxaw di bugg a defar benn centre sant santé ñeneen dafa të dëkk bi daf leen a neexul rek. def leen a neexul rek ku nekk ni nga def sa tabax sa kër boo joxee rubul ushr bi nga xam ne mooy azak boo ko joxee mu nekk ci sa wàll ci sant de sant da nga ko am waaye boo gëmee ne toujours da ngaa war a jël fii oto dem ba waa Ngoona bu baax du baaxut ngoon a nga dem ba kawlax ci loolu rek ngay sax ku bugg a soppi jamono yaay soppi jamono jamono du la xaar di di la di la soppeeku mel ni la neex ne la maa ngi nii waaw te ki nga wax ne nag doo wax ak moom boo demee ba am soxla dangay wax ne moom moo ko war a faj loolu tim xel nanguwu ko nit yu bëree ko boole xel daf koo boole yëg-yëg boole ko rooxo boole ko yooyu yëpp bu àndee déggoo dafay nekk nit koo xam ne nii nit ku am jàmmu la ak boppam bu amee jàmm ak boppam dafay am jàmmu ak ñim dëkk parce que politique duur rek liñ ko foog mooy dem ci euh, làng ak politique bi wala par far euh, euh, far ci parti bële bàyyi parti bële borom xam-xam yi imaam al-Ghazali daf doon wax ne mu ne diine mooy cosaan waaye politique mu ne mooy xaaris mooy garde diine kon ñooñu waxuñ ne politique mënta nekk man ne Cheikh Ibrahim wax na ne rijaalu diin yi mën nañoo politique waaye seen politique mooy lépp loo xam ne nii dafay yëkkati lislaam di ko kaweel aaye nañ bàyyi mu ne foofu mu wax ne aaye nañ lu ñuy wax mu mudaahana mudaahana mooy joxe sa diine ngir sa àddina bi baax politicien bi nga ànd ak bu laajee nga bàyyi yenn ci sa ponki diine yi sax wala waree fi diine yi ngir jubook moom danga ko def ngir sa àddina bi baax loolu mooy mu mudaahana mu ne loolu lañ aaye waaye mudaaraatu aayewuñ ko bu mudaaraat mooy lan nga joxe dara ci sa àddina ngir sa diine baax loolu nag moom mooy politique yi jullit bu nekk bu nekk mun na ko waaw waaye nit ki am na politique ak boppam am na politique ak i moromam mais am na politique ak nguuram waaye politique yi lislaam xam nañ ne duut politique boo xam ne politique Machiavelli la bi nga xam ne dafay wax ne alxaayatu tubarirul wasila maanaam euh, yow boo xasee ba àgg rek li am solo mooy ne àgg nga ni nga jaar ba àgg ko ku amul solo boo àggee rek euh, baax na fexeel ba àgg loolu du politique yi ak jullit politique yi jullit euh, du wax loolu du wax ne alxaayatu tubarirul wasila du ko dugal ci bàyyi ay wareefi diineem walla toggoo yu xaraam ngir àgg ci bëgg-bëggam waaye bu boobaa moom bu fekkee loolu rek moo ci des booba moom bu yoon woowu du ci du ci jaar jaam bi lim soxla dëgg dëgg mooy politique ak boppam mooy mu jéem a jikkoo jikkooy sangam ki nga xam ne mooy yàlla tabaaraka wa taala ci jaam bi mën a mel mu nga xam ne nii moom moo jël doomi aadama bind ko bind ba gën a rafet def ko muy xalifaam ci kaw suuf boobaa pour mu xeeyoo nekk xilaafa googu nga xam ne doomi aadama yépp la ko yàlla jox jaam bi dafa war a setal boppam ci mbooleem xeeti eh, weddi yàlla ak noonoo gëm yàlla toggoo li nga xam ne nii moo koy mooy rafetal gëm yàlla ci xolam bëggloo ko yàlla tabaaraka wa taala boobaa mu nekk jaam bu baax nga xam ne dangay gis ne gëm ak kóllëre dafay mujj nekk benn mbir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa imaana man laa amaanata la képp koo xam ne nii amuloo kóllëre kooku yow amuloo gëm yàlla tabaraka wa taala bu jaam bi duggee ci loolu dugg ci sullamal imaan escalier yi éeg di def taraqi ci gëm yàlla tabaaraka wa taala yàlla wéetal gu wér la cheikh ibrahima bi wax nu waxidu mawlaana bi ahmada nuuminu wa bi rusli wal amlaaki wa huwa al muhayminu ñun mooy suñu yoon wi nga xam ne moom la ñuy jaar wéetal yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallama gëm xay lépp lu ci àgg kooku danañ ci amee tontu bi nga xam ne dëgg-dëgg mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne euh, sos nañ ci àddina ba àddina joxoñ leen ne ñooy borom xam-xami àddina seeni laaj yi nga xam ne dañ cee gëlëmoon ñun am nañ lu ñuy gindi ci laaj yooyu muy tegu ci yooni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu xamal ñu ne àddina dafa am fu mu jugee yàllaa ko bind tabaraka wa dafay jeex te ci yàlla lay mujj euh, am ay wareef yi nga xam ne nii yàlla moo ñu ko waral ñi toggee wareef yooyu wàcceel nañu sharia ñi jaar ci sharia muhammadiya boobu téye ko na nga xam ne noonu la mën a rafetee gën a rafetee ku mën a mat war ngaa góorgóorlu ba doo manki ku dem ba mat ba léegi àggagoo fi nga jëm ndax war ngaa góorlu ba am ñoo xam ne nii dañuy matee ci sa loxo te loolu moom mooy tarbiyatu Cheikh Ibrahim radiallahu anhu bi nga xam ne nii moom la fi bàyyi moo tax ñii dajee di ziyaare moo tax ñuy daje ci ron mbaar mi moo tax yi nga xam ne ay furuu la dëgg la ci dund bi la bokk waaye bum ñi fàtteloo li nga xam ne nii ñun foofu lañ jëm fiñ jëm mooy li ñuy muccal lépp mooy gëm yàlla tabaraka wa taala wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil xaqi wa tawasaw bi looloo tax eh, yàlla nee na doomi aadama yëpp perte nañ lu may ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla jëf farate farata yaak naafila yi dénkante dëgg dénkante yiw loolu mooy njëriñal suñ jotaay yi moo tax waruñoo xuus ci àddina ba mu fàttelooñu li nga xam ne nii moom moo tax a jóg euh, suñ jotaay ñu ngi ñaan yàlla yàlla nangul ñu ziyaara bi yàlla def ko muy ziyaara boo xam ne ni ziyaara bu barke la boo xam ne yàlla dana ci fajee mbooleem aajoy zahir yi ak aajoy baatin yi ñu ngi ñaan yàlla ci Sénégal yàlla def fi jàmm Sénégal mu ngi jublu si ay eh, élection élection yooyu ku nekk na nga ànd ak sa xel ànd ak sa dal xam ne bu Sénégal yàqoo yow amoo beneen dëkk boo dem amoo espace yi amoo feneen foofa dem pour dëkk fa kon baax Sénégal ku nekk da ngaa war a jàpp ne yow lay sa responsabilité yow kenn nga jàpp ne yaa ko war a baaxal bu sa morom jàppee loolu boobaa ñi am senegal boo xam ne mucc na yal nañu yàlla defal loolu ci barkeb ziyaara bi ci barkeb borom ziyaara bi ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu yal na yàlla sàmm yàlla yàlla wattuñu ci lislaam wattuñu ci gëm yàlla salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah alhamdulillah abonné leen ci seen chen malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi